mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit di tedd yi rawatina sunu mbokk taalib yi nuy bàyyi xel te di ñu seetaan ñoo ngi fii ci kër sëriñ Khadim Mbacke Bayla moom Cheikh Mouhamadul Moustapha Absa ibnu Cheikh Mouhamadou Awa Balla Mbacke tey ji nag yem ñaar fukki fan ak ñett ci weeru koor gi kenn ku ne xam na ne bu ñu nee weeru koor xel yépp dina dem ci sang bu tedd ba Serigne Kosso Mbacke Assulo moom Serigne Mouhamadou Awa Balla moom Cheikh Ibrahima Fati borom Daarul Moxti ngir bis bu mag bi nga xam ne da cee jotoon digal ci way juram Cheikh Mamadou Awa Balla di yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor gi di ci togg ay xéewal ak ay ndogg di ko indil Serigne Mamadou Awa Balla ba ni mu ko noppee gis mu di ko indil Cheikh Mamadou Moustapha sa bi mu dëddoo wuy ji borom subhanahu wa taala Serigne Modou Karako sa bi nga xam ni moo toog ab jataayam yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér wëyal liggéey boobu ànd k njabootug Serigne Koso asuloo gépp bis boobu la ñeenti fan wala ñett dox suñu digg ak moom ren nag kenn ku ne xam ne ni contexte bi ñu nekk laajul daje gi ak mbooloo mi moo tax sëriñ bi joxe ndigul ndigalul ñu màggal ko nañu ko daan màggalee waaye sëriñ bi moom lépp loo xam ni dox na diggam ak ka mu ko daan yóbbul mu Cheikh Mamadul Moustapha Absa yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér dafa fas yéene lépp di gën a kawe di gën a yokk incha allahu rabbi kenn ku ne xam ne nag bis boobu njaboot gi ci njiitul sëriñ Koso Mbàkke moom sëriñ Kara fas yéene dundal ko ci xam ak yaatal ko ak jàngale jëmm ju tedd jooju di Serigne Kossa Soulou ci taxawaayam ci lislaam ak diine rawatina ci njabootuk Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul niki waxtaan yi fi jàll tey ji nag ñu ngi ci kanamu Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Moustapha Absa moom Serigne Mouhamadou Awa Balla ak soxna Mominatou Mbacke bintu Serigne Saliou Mbacke ibnu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu na ma waxtaanee tomb bu am solo jëm ci wàllu dimbalante Serigne ko Soulou nag kenn ku ne xam na ni na ko way juram tudde woon mooy tekki dimbalante mooy bu jafee mooy ki nga xam ne bu mbir yi musaana critique jafe trop bu sëriñ ko salsuloo ñëwee rek sëriñ bi am ci la mu bëgg taali bi yëpp seen xol sedd jaar na fa ak njabootuk sëriñ Tuubaa si Amadou Bamba xaadim rasul gu bari rawatina sëriñ Abdou Khadir ak ñu mel ni ñoom waaye dimbalee ci aw nit ñoo xam ni nañu woon seen bopp ba ñu dim ba ñu man seen bopp kon sëriñ bi dana ñëw ak ñun ci waxtaane ci dimbalee ak social waaye ñu jël ci exemple nag sëriñ Koso Mbàkke Assuloo bu ko defee ki nga xam ni man na war dimbalee dina ci gis boppam waaye ki nga xam ni mënul naka la war a dimbalee tey ab jullit jëm ci bokki jullitam ñu teewlu sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Moustapha Absa moom sëriñ Mouhamadou Awa Balla mu indi ñu waxtaan woowu ngir ñu waajalee ko màggaluk Sarsara édition 2021 asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu bokki jullit yépp te di leen siyaare ci weeru tedd bi di ñaan sunu borom nangul nu jaamu yàlla yi nga xam ne moom lañ ci def yépp di siyaare kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa yi nekk ci sunu kanam yëpp tàmbalee ko ci sëriñ Muntaqa mi jiite yoon wi ñaan yàlla yàggal ko fi ak sëriñ sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ mi nga xam ne mooy xalifa borom daaru ak sëriñ Moustapha xalifa si sëriñ Modou Balla di sunu waajur di sunu lépp di siyaare nag sëriñ Modou Kara mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Kosso Astou Lo moom itam di ko ñaanal bu baax suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba lim yéene ci kër gi ak àggale yéene sëriñ ko Koso lépp mu def ko di nuyu bu baax itam sunu jarbaat bi sëriñ Koso Mbàkke moom itam di ko ñaanal yàlla dëgëral ko ci yéeneem jim am ci xeeñtu jeexiti maamam ak dundal lu baax eh, yàlla kàttanal ko ba mu àggale ci yéeneem fu kawe njortam siyaare ñëpp di siyaare waajuram soxna Maam sax moom itam ca Sarsara di ko ndokkeel bu baax ci bis bi di ñaal di ko ñaanal suñu borom may ko gudd fan ak wér xam naa ne waxtaan wi moom euh, li ci ëpp solo mooy sëriñ ko Kosso ci boppam yàlla dafa def mu nekk nit koo xam ne nit kuy dimbalee la mm-hmm. kon buñ nee nañ waxtaan ci moom ba noppi waxtaan wi ñu war koo jëmalee ci dimbalee kon sëñ ko so moom ci boppam mooy dimbalee moom ci boppam mooy jëmmi dimbalee ndax dafa am benn xadis boo xam ne eh, yont bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne dafa am nit ñoo xam ne yàlla da leen fee indi ngir aajooy nit ñi nga xam ne bu nit ñi jaaxlee ci ñooña la ñuy dem mu ne ñooña nag bu ëllëgee dañuy mucc ci mbugalu yàlla loolu nag ku xool dunduk sëñ ko so jàngat ko ci wàll yépp dangay gis ne nit la woon koo xamee ne ni nituk nit ñi la woon nit kuy dimbale nit ñi la ndax man de waajur la ci man waaye mën naa ne sama xarit la woon te loolu boo xoolee njaboot ki yépp loolu nga fiy gis koo gis rek mën na laa nettali sa ak fu mu jaar ak moom damay joxe benn misaal ci sëñ Koso mu ndaw mii nga xamee ne ni moo moo wootee mm-hmm. jataay bi bi mu ganee àddina euh, waajuram tudde ko sëñ koso maamam mm, dafa ñëw ci sëñ saaliw boobu sëñ saaliw mu ngi fi mu wax ko ne ko ah moom kat ngent la sëñ sëñ koso lañ ko tudde waaye yow lañ bëggoon ñu tudde la ko sëriñ saalihu daal ne leen moo ne man de bu ma amaatoon doom amaatoon doom dinaa ko tudde sëñ koso loolu day wane wàccuwaayu sëñ koso bu mag bu rëy rëy ci sëñ Saliou ndax ku ne xam na sëñ Saliou fi mu toll. yàlla def na gannaaw bi sëñ Koso mi ki ci toppaat di sëriñ Saliou. Mm-hmm. moo tax sëñ Koso asuloo joxe ndigal ñu tudde ko sëñ Saliou. Mm-hmm. ñoom ñëpp alhamdulilah rabbil alamin yàlla dogal na fekk nañ fi sëñ fekk nañ fi sëñ Koso. Mm-hmm. kon nag loolu rek misaal doy na sëkk. am njàngale ci taxawaayam. ak fa mu féete woon ay kilifaam. ak fi mu woon jullit ñi yëpp. ni ma ko waxee ci hadis bi nga xam ne moom laa ubbee ndax lislaam eh, yant bi dafa wax ne jullit dëgg-dëgg mooy koo xam ne jullit ñi amuñu lu ñuy ragal ci yow ci sa làmmiñ wala ci sa loxo wala ci sa lenn feneen mu wax ne ki ëpp ki gën a ki ki gën ci yéen mooy ki ëpp njariñ ci nit ñi ki gën a jariñ nit ñi kon nag loolu boo xoolee dunduk suñ ko so loolu moom nga ciy gis eh, li nga wax léegi ci njëlbeen itam nga xam ne waajuram suñ mu daaw bàlla da koo defoon koo xam ne day lijjanti mm-hmm. ay xat-xat saa bu jafee rek mu mm-hmm. ñëw lijjanti ko loolu itam di garaat bu rëy rëy ndax xadis bi wax ne képp ku teggi aw tiis ci ab jullit mm-hmm. ci tiisi àddina yi yàlla dana la teggil ay tiis ci tiisi képp koo xam ne itam yaa ngi nekk ci aajo jullit ñi yaa ngi dimbale jullit ñi yàlla suñ borom day nekk di la dimbali saa su nekk mm-hmm. loolu nag boo xoolee moom itam ak dundam loolu rek nga ciy gis mm-hmm. ba ba mu jeex ndax dimbalante dimbale nit mm-hmm. dafay nekk ci yëkkati sa alal jox ko waaye day nekk itam ci mu nekk ci xat-xat nga génne ko ci yëkkati si alal jox ko ku ne gis na ko Koso ak dundam saaboo boo masaa dem këram muy Sarsara muy dakaar mhm. ngay fekk fa mbooloo mu bari. Mhm. am na ñoo xam ne fa la ñuy fanaan. Mhm. bari na ñoo xam ne dañ leen fay téye ay fani fan ñu nekk fa am na ñoo xam ne sax daanaka dañoo mujjoon mel ne ku fa dëkk. moo tax saaboo ñëwee ci kër ga mbooloo nga fay fekk te ñëpp seen njëriñ. ak yaakaar ko képp moo leen fa bàyyi. kon loolu moom dimbalee mënu ko weesu. te it teel na koo tàmbali loolu ndax xam nga. ñu fi ñu fi jiitu da ci bari loo xam da ngay jàpp ne bi ñu koy def ci at yu so at yu bari lañ nekkoon waaye boo seetee nekkuk sëñ moodu booba ay atam ci zaahir taxu ko bari noonu waaye liggéey na ci liggéey yu baree bari yoo xam ne eh, kenn mënu koo lim kon daal ñu ngi ñaan yàlla suñ borom eh, taas na ci barkeem te yokk ay leeram fam nekk la nga xamee ne ni moom la nekkee woon ci dund gi mm-hmm. muy nekk taalibeb sëriñ bi mm-hmm. te nekk kuy wuññi njàqare jullit ñi loolu itam ñu fas yéene ci roy te fas yéene ko jàngat bu baax mm-hmm. ndax àddina itam euh, li koy doxal mooy ñuy xool ci la nga xam ne mooy moo jiitu di di di ko jàng di ci jéem a defar li ñu teew ndax fekke naa fii kenn ci mbokki taalibe yu mag yi ñu bari xam nañ ko am jéeye joo xam ne daf ko def ci njuumte dafa yoroon fetal yàlla dogal mu am ñum ci lor loolu am na ñu ko fàttaliku fii ñam ci lor nekkoon ñenn ñi sax nekk ñuy liggéey ci ay service booba lu rëy la woon loo xam ne jàppoon nañ ne neexuta lijjanti waaye boobu fekk na fi sëñ ko so mu jug taxaw lijjanti ko ba lépp lijjanti ko te boobu ay ay bakkan moo ci lo moo moo ci rot loolu da dul mën a ñàkk ndax xam nga loolu bu fekkee ci luwaa kese kese boo xoolee euh, day day mel ne kii la mu def am na fu ñu war a jaar ak moom mm-hmm. waaye ku ne xam na ne la mu def teyu ko mm-hmm. te ci ay àll la nekkoon ak ay tolluwaay yoo xam ne nii ñi nekk ak moom ak ñi dëkk ak moom ñoo ko xam waaye loolu lépp sëñ ko su taxaw na mm-hmm. lijjanti ko ba jàmm ci mujj mi ngi sëñ sëñ boobu mi ngi fii di doxe ay soxlaam ba léegi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne kenn mënu koo kenn mënu koo lim kon ñu ñu di ci jànge rek ni ab julit dafa war a nekk koo xam ne day eh, nekk ci boppam waaye day daa war a nekk ci nit ñi ndax nekk ci sa bopp kese taxut yàlla andi ñu fi ndax àddina doomu aadama ni ko yàlla bindee mënta nekk ci boppam kese kese bu nekkee ci boppam kese sax mbiram du sotti boroom xam-xam yi dañ koy misaale buñ la tegalee ak lekk ah, ndab boo ko tiimee boo xooloon lépp fu mu jógee leen lu ne boo xoolee fa mu jugee da nga xam ne jàppalante am na ndax ndab li ñu ëmm ñam bi ka ko liggéey ak nam def ba liggéey ko ñam bi nekk ci biir boo ko xooloon par benn bu doon ceeb la ceeb ba fa mu jugee ak lu ya fa mu jugee diw ga fa mu jugee nga topp ko ba lenn lu ci nekk ay nit ñoo fa nekk lijjanti ko ba mu ba sotti eh, ñu ñu ñu fexe ba nga jot ci bi ñu ko dajalee ci nga doog a am li nga bëgg. kon doomu aadama ci ni ko yàlla bindee jàppalante la. Eh, fee ca waalo ñuy bàyyee ceeb bi dafa am kenn ku fa ku xorom ku mas a wax ne xam nga mbayum ceeb dafa metti mu ne ceeb kuy dajeeg moom ci ndab li rek doo xam li nekk ci moom dëgg-dëgg de maanaam kon àddina loo fi gis rek jàppalante la dimbalante la moo tax euh, lislaam wax ne jullit ñi dañoo mel ne dañoo mel ne wenn yaram mm. nee na Euh, misaalum jullit ñi dafa mel ni aw yaram yaram nee na bu fi bu benn cër méttee yeneen cër yëpp dañ ko ci jàppale ndax tànk bi day metti waaye yaram bi day tàng waa ji tëdd nga xam yaramam ba pay tëdd kon jullit ñëpp boo ko boolee dañuy mel ni jenn jëm fu ci metti rek eh, fi ci des fépp da koy yëg loolu nag dafa am ñoo xam yàlla may na leen ñu yëg responsabilité boobu xam ne dañoo war a taxaw taxaw lépp loolu nag sëriñ Serigne Koso Mbacke mii eh, ci la ko yàlla boole woon radiyallahu anhu kon daal xam naa ne eh, waxtaan wi mën naa gudd waaye eh, maa ngi fàttaliku bi ma ko mujjee gis lim ma mujjee wax booba dafa jóge ci sëriñ Saliou radiyallahu anhu mu ne ma de sëñ bi de dafa am mbir moo xam ne dafa ma ne bëgg naa yow nga def ci sa wàll nga bay ci sa waar mm-hmm. am mbir moo xam ne xawoon naa jaaxal sëñ bi mm-hmm. loolu nag da nga ci déggee comme li ma waxoon léegi ci taxawaayam mm-hmm. mm, loolu maa ngi fàttaliku bis bu ma ko mujjee gis mm-hmm. ci sarsaara damaa demoon siyaare ji ko fekk ñu ne dafa dem Touba ma xaar ko ba mu ñëw bi mu ñëwee mu ne ma dangay da ngay fanaan ba suba nga doog a dem ma fanaanee nag ci guddi gi ma wooyee ne ma kat sëñ bi kat moom laa siyaare joon waaye dafa am lu ma doon wax loo xam dafa ma ne damaa bëgg nga bay ci sa waar nga nga nga nga nga nga feeñal ci sa nga nga ci sa waar. waaw kay kon loolu wane na rek taxawaayam ak tolluwaayam sëriñ bii nga xam ne mooy sëriñ Moustapha di magam itam féete na ko fu ne. Euh, fàttali naa daaru bay laa gi rek bu màggal si mu daaw bàlla masaan jub ba des ab diir daana fi ñëw bu bu masaan di ñëw ci sëñ bu ko fekkee da koy ñëw tàggu ko ci yëpp yëngatu yi nga xam ne ni moom la ñuy war a waajale màggal gi bala ciy def dara mm-hmm. mu ñëw fi waxtaan ci moom maa ngi fàttaliku benn bis boo xam ne bi mu fi ñëwee mook sëñ bi ñuy waxtaan sëñ koso mu ne ko sëñ sëñ mu daaw bale de ni mu séddalee ak njabootam nga xam ne kenn ku ci ne da laa wutal ab dëkk nga nekk fa mm-hmm. mm, sa moroom nekk feneen mm-hmm. loolu ñi nga xam ne ñoo xam xam-xam yi àddina yi buñ buñ buñ gisoon ni mu doxalee danañ xam ne ku xereñ la ndax bu leen dajale woon ñoom ñëpp ci benn dëkk bi ak kenn ku ne li la yàlla may mm. dana seenu nekk du du du yomb loolu fàttaliku naa ko ci seen waxtaan mm. kon nag yàlla na ko yàlla fa yàlla rek mm. nekkoon na fi nekkin wu rafet kon xam naa ne eh, ñoo ngi yemale foofu waxtaan rek di ñaan yàlla suñu boroom dolli ko ay leer foofee mu nekk ndax itam ku fi jógee fàttaliku lañuy ñuy mën a def ci moom ndax fàttaliku googu mm-hmm. day eh, suñ borom da ko ci eh, yokkaat mm-hmm. ay ngëneel ñi nga xamee ne nii ñoo koy dégg itam man cee jànge lu bari mm-hmm. kon nag loolu lañ doon wax rek ci ay kàddu yoo xam ne kàddu seere la ak eh, di santaat bu baax rek sëriñ Koso ak yéen ñi nga xam ne yéen la fi yebal di jégg lu baax nag ci gàttaayu waxtaan wi ndax bette gi ak waxtu wi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.